ñun nag lañ ci yàlla sant yomb na lool mooy rey gàtt goo xam ne ni a ah, man ngaa wax ne xéwal rek la ñeexel la ak mbégte amma suñ maam Ibrahima alayhi salaam li ko yàlla santoon mooy mu rendi doomam looloo gën a métti looloo gën a tiis yàlla sant ko mu doon rendi doomam Ismaayil muy doom ju bëggoon lool fonkoon ko lool. waaye mu wane ne moom yàllaa ko gënal njabootam wane na ci dundam moom Ibrahima alayhi salaam ne yàllaa ko gënal alalam yàllaa ko gënalit boppam tabaski loolu la ñuy junj wan ñu ne ñun yàllaa ñu war a gënal suñu bopp comme ni mu gënal woon Ibrahima alayhi salaam boppam yàllaa ñu war a gënal suñuy njaboot comme ni mu gënalee Ibrahima. njabootam yàlla ñu gënal suñu alal comme ni mu gënalee yonent Ibrahima alalam Ibrahima alayhi salaam ku amoon alal la ku ko bërile woon la waaye bis malaaka ne yàlla kii alalam ju bëri ji kat xam tax mu ñàkk mel ni mu mel alal ju bëri ji rek la malaaka malaaka yi ba ñu waxee loolu yàlla ne ne aywa dem leen ngeen xool ko pour wan leen ren kii sama jaam la alal ji ci loxoom yi la yem waaye yeggul ci xolom ba malaaka yi ñëwee wax ak moom ibrahima alayhi salaam wax malaaka bi ne ko tuddal yàlla xamul woon sax ne malaaka la boo tuddee yàlla ma jox la sama xaaju alal mu tudd yàlla mu jox ko ko ne ko tuddaatal yàlla ma jox la li des mu tuddaat yàlla mu jox ko lu des mu ne ko boo tuddee yàlla ma jox la sama bopp kon Ibrahima yàlla ko gënal sax boppam mu tudd yàlla mu ne ko bismillah yóbbu ma malaaka bi dem ba fa alal jeeg Ibrahima yëpp Ibrahima ne ko déet kaay yóbbaale sa alal jox naa la ko ba pare malaaka bi ne ko man du ma nit waaye malaaka laa dama ñëwoon pour examen la imtixaan la xool fan la alal ji toll ci sa xol waaye gis naa ne yow yàlla la gën a lépp ibrahima alayhi salaam ne alal ju ma génne te yàlla tax duma ko jëlaat bu doon keneen nga def ko ndokk yàlla sant yàlla ndax am nga ndam jëlaat sa alal waaye ibrahima def na alal ju ma génne te yàlla tax moom duma ko jëlaat bu mukk alal jooju def koo jël defaree ko baytul maqdis kon ibrahima moomu lañu war a roy ci tabaski ndax moom moo sunnaal tabaski am na doom ju baax lool rafet lool muy Ismaayil alayhi salaam mooy maamu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am ko gannaaw bu mage moom Ibrahima yàlla sant ko ne ko reyal sa doom muy mbir mu tiis te métti lool ku ne xam na ne mag dafay bëgg njaboot rawatina doom ju baax taaroo noonu amee yaakaar noonu nga bëgg ko lool yàlla xëy xëy ne la rey ko nga attan koo jël rey ko dëgg-dëgg kooku bëgg na yàlla kon leçon bi ñu war njëkk a tiire ci tabaski mooy bëgg yàlla wane na ñun ñu bëgg yàlla lañ comme nu ko Ibrahima alayhi salaam wane woon jël na doomam tër ko rendi ah yàlla bañ paaka bi mënu dagg mu takk bët ya yaakaar ne yërmande la rendi paaka bi mënu dagg ci la yàlla indi ab kuy ca jana jox ko ko jotee ko doom ja ne ko reyal xar mi te basa doom natt bi ñu la natt natt bu màgg la bu rëy la waaye am nga ci ndam kon yow mi nga xam ne yàlla sant mooy jëlal jëndal ab xar rey ko dëgg-dëgg sa xaalis yàlla la ko war a gënal war ngaa jël dara ci sa alal comme nu Ibrahima joxe na alalam lépp nga jël dara ci sa alal jënd ci xar mu baax rey ko ndax yàlla yàlla ka sa doom lala waroon a sant santul la doom mu sant la xar moo xam ne boo paree def naa la man nga cee lekk bu ko neexoon mu ne la boo ko reyee doo ci lekk da koy joxe ba mu jeex waaye mu rey loola ko ba pare bàyyee la ko dëgg-dëgg war ngaa fexe ba def loolu kon leçon bi ñu war a njëkk a tiire ci tabaski mooy wane bëgg yàlla roy ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam tabaski nag ci ni ko Malick jàngale képp kuy jullit rek tey góor war na la moo xam góor wala jigéen moo xam mag walla ndaw kenn ku nekk yow la war ab jaamu yàlla la daal jaamu yàlla goo xam ni ni keneen bëggee tiyaaba ga yow noonu rek nga bëggee tiyaaba ga soo ko mënee daal war na la kan mooy ki man tabaski mooy koo xam ne du soxla njëg gi ci at mi su fekkee la nga jëndee tabaski balaa at mi di jeex nga soxlawaat ko soxla boo xam ne mënul ñàkk yow tabaski wàcc na la warul la waaye koo xam ne lam jëndee tabaski moom at mi lépp du ko ci soxlawaat kooku mooy ki nga xam ne tabaski war na ko moo dëgg-dëgg ñi war nag bareewut parce que ñu bari buñ jëndee tabaski mën ngaa wax ne balaa at mi jeex ñu soxlawaat xaalis bi soxla wu ñit nga leb di ko wuti boo ko amul rek wàcc na la moom tabaski ah bëgg nañ nag waaye jur defal ko doomam say doom yu ndaw nag laa wax parce que sa doom bu demee ba mat mu këllaf yow waratoo ko dundal waroo ko reyal tabaski amaa sa doom bi bu dee xale la matagul mu kalaf wala jigéen la amagut borom kër bañ jébbal ko borom këram yaa ko war a reyal tabaski waaye benn xar ngay jën soo jëndee benn xar rey ko bu ci fàtte yéene waale sa njaboot su boobaa danañ am tiyaaba maanaam danañ am tiyaaba ku tabaski ku jënd xar tabaski ci sa xar moom kon waajur wu nekk loo yàkkamti yàkkamti balaa ngaa rey sa tabaski yéene waale ci sa njaboot sa tiyaaba daara du ci wàññeeku te sa njaboot danañ am tiyaabaab ku jënd xar rey ko waaye bu dee da ngaa rey sa bos rek yéene woo leen ci ah ñoom duñu am tiyaaba ga te yaa leen ko waroon a defal tabaski nag du farat sunna la waaye sunna su dëgër su bëri tiyaaba suñ fonk lool soo xam ne kenn ku nekk war naa góor góorlu ba taxawee ko am na it lu mat leeral mooy góor tabaskil soxnaam waru ko yéen soxna yi ni góor ñi waree tabaski noonu rek ngeen waree tabaski su ngeen ko manee waaye du borom kër moo war a jëndal soxnaam xaram tabaski ah rawatina ñi nga xam ne bu ñu amee ñaari soxna ñaari xar lañuy jënd xar mii diwa ko moom xar mi këlee ko moom ah man ngeen koo def ci seen coobare bopp waaye warul leen yow jigéen ji ni góor gi soxlaa tiyaaba noonu nga ko soxla mooy sa borom kër waaye Malick nee na warul laa tabaskil yow yaa war a tabaskil sa bopp kon soxna yi ñoo war a tabaskil seen bopp bu la neexee it nga jënd xar dugalaale ci ñi nga xam ne say mbokk lañ te waroo leen dundal sa doom moom wax naa la da nga ko war a dugalaale bu la neexee nga jënd benn xar ñi nga xam ne say mbokk lañ yaa leen dundal di la warul la comme say rak say mag say soxna ak say doomu baay tax sa mbokk yi ngay dundal teñ bokk ak yow dëkk mën ngaa rey benn xar yéene leen ci ñoom ñëpp su boobaa tabaski wàcc na leen di le am nañ ko ñoom dañuy mel ni ku tabaski rek tiyaaba gi danañ ko am tabaski wàcc na leen loolu mën naa nekk waaye foog ñett yi mu wax dajee si benn xar lay doon moo xam ne yaa ko jëndal sa bopp ñaareel ba mooy ñooñu dafay fekk ñoo yow yéen a bokk dëkk ñetteel ba mooy yaa leen di dundal maanaam yaa leen dundal benn xar la nga yéene leen ci bu waa mën naa nekk amaa bu dee koo xam ni moom mooy dundal boppam te yéen ñaa yéen a bokk nekk kooku mënoo koo yéene waaris sa xar mi ki nga xam ni it dégg nga yaa koy dundal waaye bokk leen fi ngeen nekk te sa mbokk rek la kooku mënoo koo dugalaale ki nga xam ne du sa mbokk sax moom far di la yéen bokk fu ngeen nekk yaa koy dundal mënoo koo dugalaale si sa tabaski tabaski nag boo si dugalee koo si warul dugal yéen ñaa ñëpp amu leen tabaski yàpp rek ngeen am kon nanga bàyyi xel loolu naka noonu it bu la neexee nga jënd sa xaram tabaski may ko am mbooloo wala yow mi nga xam ne am nga alal ju bari ñi may la xaram tabaski nga rey ko am nga tabaski tey su ma jëndoon benn xar jox ko am mbooloo ne yéen a ko bokk buñ ko reyee ñoom ñëpp tabaski wàcc na leen di am nañ alal di lee am nañ doole bu leen neexee duñ jëndati ndax am nañ tiyaaba ga ba pare kon nga nekk borom alal nekk borom doole ñu may la xar du ko yàq bu ñu la mayee xar man nga koo rey tabaski la bu ñu la mayee xar boole laa keneen it su ngeen reyee xar moomu tabaski wàcc na leen ndax loolu mën naa nekk kon yow moom jënd sa xar mayee ko moom amul benn charte ku la neex nga koy may ñu la neex nga koy may dégg nga mbooloo mi it amul lim ñoo ko jox daal buñ ko reyee tabaski wàcc na leen Malik nag nanguwut nga joxe sa moroom joxe ngeen dem kar xar wala nag rey ko tabaskee ko kooku Malik nangu ko Abu Hanifa ak Shafi nangu nañ ko waaye Malik lim nangu mooy yow kese nga jënd sab xar dugal si ñii ma la wax ne man nga ci dugal Abu Hanifa ak Shafi nag nee na juróom-ñaari nit bu mu ko ëpp man nañ bokk ku nekk joxe dara ñu jënd xar wala nag tabaskee ko ñoom seen ngir nangu na loolu ah damay jàpp nag Sénégal ni fii ñu toll nga xam ne boo tabaskiwul mën naa nekk gàcce gu mag say dëkkandoor ak sa njaboot su nga joxe dara ngeen jënd gàtt tabaskee ko waaye bu leen ëpp juróom ñaar nit ndax suturaal seen bopp suturaal seen njaboot suturaal sa bopp kat farata lay doon dégg nga te jënd xar moo xam ne da ngeen da ngeen a dajale kooku moom yëggut ya, ci loo xaraam maalik rek ko bañ ah, su boobaa man ngeen ko def ndax sutural seen njaboot sutural seen bopp ci bis boobu waaye na ngeen roy ci abu hanifa ak shafi tabaski nag lii lañ ci war a rey xar moo ci gën xar moo xam ne tàppuñ ko moo gën xar muñ tàpp amma bu fekkee xar miñ tàpp moo gën a duuf moo gën a rëy xar miñ tàpp mooy gën ndax tabaski bi gën a rëy lañ soxla soo amee xar mu góor laa bëgg a wax muñ tàpput moo gën soo ko mënul nga jël buñ tàpp waaye wax naa ne buñ tàpp bu gën a rëy sax moo gën far soo amul xar mu góor muñ tàpp jëndal xar mu jigéen moo gën soo amul xar mu jigéen yow xar wàcc na demal ci bëy moo moo si topp bëy buñ tàpput moo gën bëy boo xam ne dañ koo tapp bëy bu góor buñ tàpput soo amut bëy bu góor buñ tàpput nga jënd buñ tàpp soo ko amut nga jënd bëy bu jigéen soo ko amul nag nag moo gën nag wu góor wuñ tàpput soo ko amul nag wu góor wuñ tàpp soo ko amul nag wu jigéen soo ko amul nga jënd gëlëm gu góor guñ tàpput su ko amul buñ tàpp su ko amul gëlëm gu jigéen kon xar moo gën tegu bëy tegu nag tegu gëlëm safaanab had yu mag had yu moom yàpp wu bari lañ ci soxla moo tax gëlëm a gën tegu nag tegu xar tegu bëy waaye tabaski nag yàpp wu teey lañ ci soxla moo tax xar a gën tegu béy tegu nag tegu gëlëm su ko defee benn bu nekk ci yooyu bëgg nañ mu am nu mel bëgg nañ it moom at yi nga xam ne moom lay toll bañ mën ko tabaskee su dee xar boroom xam-xam yi nañ ci ñi ne juróom benn weer doy na mat na tabaski xar mu am juróom benn weer mat na tabaski ñi ne déedéet foo mu am juróom-ñetti weer loolu it jëlee nañ ko ci Malick ñu ne déedéet foo mu am fukki weer li nga xam ne ñëpp dajee nañ si rek dëppoo ci mooy bu am at ba dugg ci atam ñaareel moom mat tabaski xar mu am at ba dugg ci atam ñaareel bi mat na tabaski waaye am ñu ne loolu du ci sart bu amee fukki weer rek baax na ñu ne déedéet juróom-ñetti weer sax baax na ñu ne juróom benn weer baax na mën na tabaski kon ñeenti wax moo ci moo ci am soxnuun moo wax juróom benn weer dégg nga ibnu wax bu mu ne fukki weer jëlee nañ ci Malik mu ne juróom-ñetti weer bi nga xam ne ñoom ñëpp dëppee dëppoo nañ ci mooy ba am at ba dugg ci atam ñaari ma amaa bu dee bëy moom foo mu am at ba dugg ci atam ma dugg gu leer nañ ñi te mooy mu am ca weer kon bëy moom xoolal at ya na am at ba dugg ci atam ñaareel ma dugg gu leen nañ ñi te mooy mu am mooy mu am weer ci atam ñaareel ma bu dee nag mooy na am ñetti at ba dugg ci atam ñeenteel ma moom nag pour mu mat tabaski du nag wu rëy rek na am ñetti at ba dugg ci atam ñeenteel bu dee gëlëm na am juróomi at ba dugg ci atam juróom benneel ma te na nekk nag kese amaa bu dee yaay ji nag la baay wala boog baay ji eh, yaay ji eh, nu mu xar la baay ji kéwél la du baax na nekk loo xam ne nii juru kër rek la doomu kéwél gàtt gi dëkk ci doomu aadama yi maanaam doomu kéwél ak xar wala yi mel noonu baaxut matut matut tabaski su ko defee la ngay tabaskee am na ayib yoo xam ne daf koy yàq bu ci amee du baax am ayib yoo xam ne nii bu ci amee gënut waaye yàquut bokk na ci ayib yi nga xam ne daf koy yàq mooy mu pat bu ñu la waxee bu pat mooy boo xam ne benn bët ba gisatut matut tabaski kon bu gumba waxi noppi kon bu pat kenn du ko tabaski ak lum duuf duuf lu mu rëy rëy ñaareel ba mooy bu feebar feebar bu leer naññ su dee feebar na waaye la morom yi di def moo ngi koy def buñ dawee mu daw buñ yëngatoo mu yëngatu lépp lu ñuy def rek mu ngi koy defandoor ak ñoom kooku yàqut tabaski ba waaye bu feebaree ba loof lool la morom yi man mënul ko ah su boobaa kar xar mo matut tabaski nga dañ ne da dafa yak yap lu feebar da wóorut lek. lekk ñetteel ba mooy bu mu soh buy sox sox gu fess te moy sox go xamne ni nii dab moram ya bu ñi daw mënul leen jot boko ko gis ne ki tank ba moo tax dab moram ya woko ko matut tabaski moom bu dee mu ngi sox sox go xamne man na dab moram ya tolok ñom dégg nga boobaa loolu du yàq tabaski ba di la gënul nag waaye du ko yàq ñetteelu mooy bu mu ràpp bu mu làpp tuuti lool bu làpp nag am na ñaari firi ñu ne mooy boo xam ne amul yuur ñu ne mooy boo xam ne nii amul geres kooku matu tabaski kon ñeenti yi daal matuñ tabaski loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci bokk na ci yi nga xam ne yokk nañ ko ne matu tabaski mooy bu dof xar mu dof ku ko tabaskee baaxut ak boo xam ne dafa fër lekk na ba mënatul yëngatu bokk na ci li nga xam ne dafay yàq gàtt gi ba du mat tabaski mooy mu ñàkk nopp gàtt goo xam ne amul nopp wala nopp ya lam ci am bëriwut kooku matu tabaski su fekkee nag am na nopp waaye nopp ya dafa gàtt waaye gàtt ga jéggiwut doyoo maanaam nopp yi xaw naa gàtt rek dara daggut ca dara wàññeekuwut ci mu xaw a gàtt loolu du ko yàq amma bu gàttee bu ëpp na nga xam ne daa nekk amul dara ci nopp su boobaa loolu du matt tabaski su nopp ya daggee wala mu xar dangay xool bu dee boo xaajee nopp ñetti xaaj la dagg wala mu xar benn xaaj ba lay tolloog loolu yàqut ko rawatina bu ko gënee suufi mat na tabaska di la gënul nag su fekkee nag la dagg ëpp na ñetteelu xaaj ba boo xaajee nopp bi ñetti xaaj la dagg ëpp na ñetteelu xaaj ba kooku matu tabaski nekk noonu bu xaree bu dee geen nag moom bu dee la dagg mat na ñetteelu xaaj ba rek matutut tabaski bu dee geen ba moo dagg te boo xaajee gen bi ñetti xaaj benn xaaj ba dagg na matul tabaski bu dee la dagg matul benn xaaj ba nag mat na tabaski bu dee benn xaaju euh, gen ga dagg na bu ko xaajee ñetti xaaj la dagg man na benn xaaj bu war mu ëpp ko suba matul matul tabaski loolu nag dafay fekk muy gen goo xam ne am na yàpp amaa bu dee xar nga xam ne ni seen nga amul yàpp kooku moom faw gen nga dem ba ñaawal ko manam dag ba li dag ñaawal xarma su ba do tu mata tabask waaye bu re li dag ñaawalul xarma di la ëpp na ñettelu xaj ba sax yaqut dara moy xar mi nga xamne ni wala gatt yi nga xamne gen nga du am yap dégg nga bok na ci li yàq gàtt mooy gémmiñ ko lol a ah ba du mat tabask way ci kaw xet gi nek lo xamne ni juddu ko bu dee noonu la judduwaale yàqul ko bu dee dafa gàtt si nag loolu feebar la daf koy yàq bokk na ci li yàq gàtt bi mooy mënut génne kàddu mu luuw ah lu mooy gaar gaar waral ko ndax gëlëm léegi-léegi bu ëmbee dootu mën a yëkkati kàddoom loolu du yàq tabaski bi bu dee benn gaar gaar waralu ko dafa dem baskira mu luuw feebar la ci moom su boobaa loolu du mat tabaski bokk na ci li yàq gàtt tabaski mooy mu ñàkk soow bu dee jigéen la amul soow mënul am soow loolu du ko yàq bu dee nag am na soow waaye dafa bariwut da ko yàq laa wax bu amul soow bu dee am na soow waaye bëriwut du ko du ko du ko yàq bokk na ci li yàq gàtt bi mooy béjjën ba damm te wérut bàyyil xel loolu bu dee gàtt bi amul béjjën dara nekkut dafay niru lu ñaaw nag waaye dara nekku ci dëppoo nañ sax ci ne gàtt boo xam ne ni dafa judd te amul béjjën mu di jëmmaa u mat na tabaski loolu moom dëppoo nañ ci bu béjjën yi dammee nag ba wér mat na tabaski waaye su wérul nag loolu feebar la matu tabaski kon gàtt bu amut béjjën su fekkee wéragut matut tabaski su wéree nag mat na tabaski nàcc naa am nàcc wu du ci charte da xool weer na wala wérul rek di la béjjén yëpp damm ba jeex tàkk sax dara nekkul si mat na tabaski nem weer na bu juddoo taamul béjjén it dara nekkul si bu dee nag beneen cër moo damm bu dul béjjén ba yàqu na matul tabaski ni tànk ya wala yu demee noonu su dammee loolu matutul tabaski bu dee bëñ la ñàkk nag bëñ ba dafa damm wala mu foq dañuy xool bu dee benn bëñ rek la dara nekku ci bu dee it bëñ yu bari la waaye mage moo ko waral wala dafay foq dafa toll ci bëñ yi war a wadd loolu dara nekku ci bu dee ñaari bëñ la nag te mage waralut ko foq waralut ko matut tabaski kon bu dee damm ci bëñ yi mat na ñaar su boobaa te mage waralut ko foq waralut ko matut tabaski bokk na ci ay bi nga xam ne nag du yàq gàtt gi waaye bëgg nañ mu mucc yi mooy bu daara ci nopp yi dagg lu mu gàtt-gàtt waxoon naa la nopp yi bu dee li dagg ëpp na ñetteelu xaaj ba matut waaye nag bu dee ñetteelu xaaj ba jëm suuf moo dagg ci nopp dara nekkul ci baax na waaye gënut nag benn bëñ bu daggee waxoon naa yàquwut waaye gënut nag geen ba bu dee li dagg mën na ñetteelu xaaj bi wax naa ne baaxut bu ko matul nag baax na waaye gënul nag na nga fexe it wut gàtt bu rafet bu weex te ami bëjjën di la wax naa ne bu amul bëjjën yàquwut waaye gënul nag kon boolem ayib yi nga xam ne wax nañ ne la bu nekkee ci gàtt bi yàqut ko xamal ne gënut yow mi nga xam ne yaay rey tabaski yow lañ bëgg nga reyal sa bopp ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan def da daan rendeel boppam gàttam ndax moom ku wàcce woon boo xam la nit kese la woon moom moo gën ñëpp waaye daf laan defal boppam comme nu ko ñëpp di defee bëgg nañ nga rendil sa bopp sib nañ ngay jël keneen na ko na la rendil te mën ngaa rendi soo mënul rendi nag man ngaa wuut julit bu baax mu rendil la soo wutee koo xam ni nag julit la waaye dafa kàccoore bu la rendilee baax na waaye def nga luñ sib kon ka lay rendil yow bëgg mu nekk ku baax amma boo bàyyi xéeféer mu rendil la sa rendi gi baaxut kon loolu nañ ko baax xel ka lay rendil moom foo mu nekk jullit ndax nit mën naa dem ci misaal ci barab bu ñuy jaayee ay gatt jënd fa gatt ci ab niir rek jox ko mu rendil ko te xamul moom mooy kan kooku la rendil bu dee xéeféer la sa rendi ga baaxut am nga yàpp waaye amoo tabaski kon tabaski moom jullit rek moo ko mën a rendil boppam wala jullit rendil ko ko naka noonu it bëgg nañ imam bi nga xam ne mooy jiite mbooloo mi mu indi tabaskeem ca jumaaja ndax ñëpp gis ko parce que ku rendi te sa imaam rendeegut baaxut loolu nañ ko bàyyi xel ah looloo waral it ñu bëgg imam indi gàttam bu jullee ba pare ñëpp taxaw xool ko mu rendi ba pare ku ñibi sa kër mën rendi waaye ku yàkkamti julli rek dem rendi te sa imaam rendeegut am nga yàpp waaye kat amoo tabaski kon su ko defee imaam dafa war a andi gàttam bu imaam andiwul gàttam nag yow boo jullee ba pare man ngaa rendi boo rendee rek baax na parce que imaam deful li mu war a def dégg nga tabaski amul problème ñett jarul moom tabaski amul problème ñetti fan la rendi ci fan bu njëkk bi dafa gën rek waaye ku rendi ci fanu ñaareel bi wala ñetteel bi it am na tabaski imam Shafi sax def na ñeenti ñeenti fan la moom far looloo waral eh, bu kenn nga ŋàññi kenn ci wàllu tabaski koor moom korite moom benn fan la waaye tabaski ñetti fan la imam Shafi ne ñeenti fan jërul ŋàññiwante jërul xuloo jërul nangam jàpp naa ne daal bu ñu arafaa ba sa suba ga moo di tabaski ndax tabaski lu ko tax jóg feet la feetu lan feetu aj yàlla sant nañu ñu aj baaj ga jeex mu may ñu feet muy tabaski sant nañu ñu xoor ba ga jeex mu may ñu feet mu di korite sant nañ ñu jaamu yàlla ba semaine jeex mu may ñu feet mu di ajjuma xool leen nag ajjuma saa yu jotee rek lañuy ñuy julli julli googu mu di fet buy semaine bi di jeex xoor gi buy jeex rek korite gi mooy stop topp xaj gi it buy jeex tabaski moo si te xaj arafa la mooy bis bi nga xam ne ni bisu tabaski yàlla dafay sant ñey aj ñu rey ay xaj yu berneel nit ñi loolu moo waral mu berneel laa la ñi nga xam ni sax nekkuñ màkk di aj kon dëgg-dëgg defe naa ne bisu tabaski moom leer na mooy bisu arafa bu paasee muy bisu fukkeel ba ci lañ war a tabaski te aj arafa la waaye ku tabaski ci beneen fanit am na tabaski ndax ñetti fan la hmm? defe naa ne bu fi yonent bi nekkoon doon dund sallallahu alayhi ñu sallam ñun jullit ñëpp fu ñu déggee ne yonentu tabaski na danañ tabaski fu ñu déggee ne xoor na danañ xoor dile lay ixtilaaful ummati rahmatun wute bi yërmande la mën ngaa wuteeg sa mbokam jullit ndaay dem borom xam-xam la rek amul ben problème borom xam-xam yi dañoo oyofal lépp même même arafa dañ ne buñ ci jume taxaw bis yaakaar ne mooy arafa fekk bis boobu fekk na arafa passé bisu fukkeel la lañ taxaw te bisu juróom-ñeenteel bi lañ waroon taxaw nee nañ arafa ga baax na yow mi aji woon sa aj baax na. njumte gi du yàq sa aj ndax yàlla santu la loo xamut kat li nga xam la la sant amaa bu dee da ngaa taxaw ta arafa gi jotagut ni nga taxaw bi si juróom-ñetteel après nga xam ne kat du tey suba la ah suba ba moom foofu nga taxawaat ko parce que passé gut soo taxawaatul du baax kon njumte yi nga xam ne mu ngi am ci compte yi ci bis du yàq sa jaamu yàlla du yàq sa dara ndax yàlla buur bu baax la su ko defee tabaski ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangul ñu ñun ñëpp ñu ngi baalu àq di baal àq ñëpp ci fet gi ñu jublu si yàlla it soxlawut gàtt gu rëy soxlawut yàpp bu bëri soxlawut dara lim soxla daal mooy ragal yàlla gi ragal yàlla gi nekkoon si yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ba mu ñemee ba mu àtt na rey doomam ndax yàlla loolu la yàlla bëgg a ci yow mu rey loola xar xam nga ne lim la def loo bëriwut fexeel rey xar mi parce que yàlla la ko sant waaye bul rey xar mi parce que da ngay puugarewu yaa ngi woon say dëkkandoor ne man xar mu mag a mag laay rey te it ku ci mën a dimbale dëkk dëkkandoor bañ am jàpp naa ne moo gën rey xar mu rëy te seer di la xar mu rëy nag baax na waaye bu dee dëkk dëkkandoor amuñ dara yonentu def daan santaane ne ñeex sax boo ko toggee ne ndox ma bëri pour nga may ci say dëkkandoor koo xam ne ni ma nga regg féex kontaan te ay dëkk ndooram nga xiif sonn kooku ak jullitam matut gëm yàlla matut nettali nañ benn borom xam-xam bu ñuy wax ibnu muqafa dafa mës a toog ci këram di feexlu ca ëtt kër ba ñu andil ko xibaar ne ko sa dëkkandoor baa ngi jaay këram mu ne jaay këram ñu ne ko waaw mu ne su jaayee këram de sama kër gi xaram na ma dem ci dëkk ndoor mu ne ko ñaata ngay jaaye kër gi mu ne ko nangam laa koy jaayee mu jënd ko may ko ko fekk dëkk dëkkandoor dafa yoroon bor amul lu mu ko fayee mu bëgg a jaay kër gi yow it fexeel ba boo mënee jënd xar mu rëy waaye say dëkkandoor amuñ dara nga seddale leen ñoom ñëpp ku nekk am dara ndax xaqi dëkkandoor kat farata la suturaal sa dëkkandoor warugar la baaxee jëm sa dëkkandoor kooku farata la warugar la te tabaski sunna la defe naa ne warugar moom lañu jiital ci sunna su ko defee fexe ba dëkkandoor yi am dégg nga ñëpp am tabaski kenn du jaaxle ndax bisu feet la loolu moom mooy gën di puugarewu ci xar mu rëy mu mag a mag léeg xar mu rëy mu mag nag bëgg nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الإسلام وإيمان